mbaam xuux nga ku la xool say nopp ah ak sa gémmiñ gi niroog tuunu golo nga xam ne yow mbaam xuux nga yow du ma wax ci yow kii ma wax leen benn affaire téléphone bi mu yor nii nii moo gét moo ko jëndal barki Serigne Babacar Si moo moo ko jëndal téléphone bi di ko financé xaalis pour muy contre Wally Seck di ko plainte di wax ci moom su génnee weddi ko ma jël téléphone bi léegi-léegi dugal ko